sunugal24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24 point net. waaw Paul ñu ngi lay fay. di la wax. Euh, Sigid Ndigalé lu ñu bokk ku xam na ne sa papa sa xarit la tey moom dañ lay bàyyi rek nga wax lu la neex ci moom ak lépp loo xam ci moom. waaw ginaaw bi ñu waxee baat sant yàlla boobu noonu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di nuyu monde làmb monde Sénégal Mor Fadam kenn ku moo mën koo jaale sa morom di nuyu àdduna bi yëpp wuñ kenn vraiment ndax fu ne laa jotee coup de loolu mooy rek ay firnde yu nit ku baax la. di wax ni xel dal na ci moom tey ni bis bi dëkk bi mel xel dal na ci moom te tey ni mu génnee àdduna dama ni mi ngi ma doon ñu ngi déggante démb mu ma doon wax naan man dam koor yëpp xaw ma nu ma ko wooree. ma ne ko dama feebar mu waaw dama feebar mais jiile am na ku ma booleel benn médecin pour mu def traitement yi ko kon après naa la booleeg suma tamit koor gi dama feebaroon mënu waaw bu traitement yi jeexee rek na nga boole ba may tooñ naan ma gën naa dégg dama lay alamaan man xam naa da nga bëgg ay ginaar rek moom école bi defe naa man rek maa mu damay jàpp ne man suma xarit la pël Mor Fadam nit ko loo koo xam ni du jëw benn mi ci dëgg maa ngi ci fena bëggul ngay wax ci nit loo xam ni tamit wóorul la Mor Fadam foo ko fekk xaw ma ban werd lay werd mais gëm naa baatu yàlla la foo ko fekk moom ngay dégg ci làmmiñ ak kuris gi Mor Fadam image yoo génne kurus mi ngi ci loxo bi kon defe naa ni moor nit la koo xam ni xel dal na ci moom am naa yaakaar ci moom te vraiment yàlla bu yaakaar tas yàlla bu ko cat topp ci bàmmeel nit la koo xam ne daal wax dëgg yàlla suñ ci nekkoon bi wax fii ba suba du jeex parce que man bi may ñëw ci école bi mën na nekk 300 liter lañ xaw ma 400 litres mais danaan baay ñoom ñëpp sepp sempi ma teg ma fee naa ma defal nangam defal nangam ñëw na Canaba xamante naa ak suma pap xamante naa suma famille sama kër bu yàggu rek la ñëw. bi ñuy joxandoo yow fa la la fekk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko sama ko doon séq ak moom te nit la ko xam daal am na fu ma tegoon man moom bu lool jàllee sax suma sëriñ la su combat mee nii su ma nee guy gi nangam rek instant rek dama ah père yow gis baaxul mais bu reyee rek dama alhamdulilah rek dama naan carrément damay daal ñu ma lan man leen moo la fa dem waa libu la de kii baax na mais ay détails loolu nag du hasard quoi mais di ñaanal yàlla rek yàlla yóbbu ko àjjana yéen tamit di leen jaajëfal bu baax lu am rek ñun ak yéen naqar ñun ak yéen bànneex ñun ak yéen te làmb euh, te àdduna dafa toll foo xam ne surtout lu ñu yëngu mënuñoo dem sans médiatisation kon ni leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaale waale bu baax nag yéen ñëpp kenn mën ko mën a jaale si woon. Euh, guy gi est-ce que tey pare ngeen taxaw li nga xamante ne mooy njaboot gi mu fi bàyyi. non ñun bi mu fi nekk sax loolu du wax ay télé yi quoi mais kenn ku ne moom xam na guy gi fi mu féete ci waa kër Mor Faram xam na fi mu féete ci Mor Faram Mor Faram mi ngi ci dëgg man maa ngi ci fenn jiili xam na ñi nekk ci école bi xam nañ defe naa ni liñ doon def defuñu ko ngisal bu doon def ngisal woo télé ñu jël ko wala woo ñu jël ko te ñu ngi ci woon bi ñu yàlla suturaale ba ñuy mën ba tey naas xam na li may wax te it même ñi ma àndal nii ay fifty cent ñi ñëpp xam nañ li may wax mal kenn ku ne xam na man du ma wax du ma waxantu li ma seex ak ñoom ci jàmm ñu ngi koy seex ci jàmm te incha allah dañ koy continuer seex jàmm ak salaam jërëjëf jaajëf. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net